yàlla nañu yàlla doon sutura yàlla nañu yàlla may jàmm bu ñu mën a àggali projet bi nga xam ne tey tuuti lañ leen ci bëgg a woon kon bu ñu sante yàlla nag yàlla nag dañu gërëm ñi nga xam ne ñëpp dañu bàyyi seen yitte ñëw teewal ñu fii tey di ko commencé ci Birane mi nga xam ne wax dëgg yàlla kilifa la di modérateur di projet li def porte sawar di ko ziar Birane xaaral mënuñu la bañ a lim parce que nit bu baax nga te yàgg nga ñoo jàppale di ziar boobu bu baax staff monsieur le maire ci leen bu baax a baax parce que yàgg nañu dox si projet bi keroog bi ma waxee monsieur le maire ne ko dañu soxla salle bi audience nañ bëgg daf ma ne clairement Fallou loolu jarul audience salle bi sa salle la mairie bi sa mairie la donc li bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla motali artiste jàmm kër si gàmbaaw yëpp ñi may wax ñu ngi si ginnaaw suñu njaay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñuy dégg yàlla ko yàlla defal jàmm mandat yi yàlla na bari di remercier ma famille à moi la promo école jàmm nga ñu ngi nii présente Malick Sall gërëm Mamadou Diop kontaan ci moom trop di gërëm aussi Abdou Aziz Diagne ak waa këram parce que yaayam moom mooy yaayu bu ñu bii maman Sophie bu Mbodj Diagne ngeen daal ci bu baax a baax lu ñu dugg rek dugg rek ne ko ak ñun jàppale nañu wax macha allah Mamadou Loum ci yow mon frère maa ngi yow ñoo bokk projet bi yal na yàlla dugal sa fan mais bu loolu weesoo ginnaaw bi ñu sant Issa Fall parce que moom it jeune la boo xam ne commune bi rek moo ko ñor moom moo yore conseil communal de la jeunesse monsieur Fall merci beaucoup. di ziar suma nijaay bu baax Ndiogu Niang moom it nit la boo xam ne Serigne Saliou Mbacké rek moo ko ñor ngeen may ko moom bu baax a baax yàlla neex na fa la jàmm ñu ngi lay bëri macha allah xam nga tournage dafa metti ñi ci dugal seen loxo dafa bari mais ñun bi ñu gën a frappé ñun moment tournage bi ba ñu egsi fii mu ngi tudd Fari Faye ñu bëgg ngeen may ko loolu bu baax a baax Grâce à ceux qui est là la salle xar yi bëgg moo ko ñaan teel moo teel parce que dañu ñëw am problème kër d'abord il a tenu mu ni sama kër a ngi noonu jox naa leen ko mi ngi Portugal rakkam nañ ak sërëm yi ñàkk ñaan yi ñu yaatal ñu bi mu yëgee ne këram am na at yu fa nekk dafa voyagé ñëw à Dakar bi mu ñëw Fatou dafa ne pare mi ngi ñëw mais su ñëwee loolu sax ba wax ko sur le coup xaalis bu la yëkkati jox ñu ko donc moom aussi ñu ngi koy gërëm. li bëgg moo ko xam yàlla na yàlla barkeel lépp Mamadou ñu ngi gërëm Matam Ba bu baax di gërëm nag honorable conseiller économique et social Dieng Mbacke Seck ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax. ñu sottee wax dëgg yàlla ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy gërëmee Doudou Aidara Mbarek production parce que projet bi moo koy indil rek mu déposé ko ànd ak man jël ay caméra am xoolul fàllu ci fa am xoolul dara.

donc euh, incha allah man kontaan naa trop dommage nag dama gis ben extrait bu ndaw mais yaakaar naa ne Prince yow yaa ma gën a bëgg jigéen voilà donc j'espère que dinaa suivre suite bi quoi jaajëf. di nuyu aussi autorité yi nga xamantene ñom no tok ni vraiment di wax fallu ne ko sa bisu tay ji ni forcément ni la mëna mel ndax ya ko liggéey fallu nekk na nak nit ko xamné nit ku bax la. barki Seydina Muhammad nangoo weccee nag xelam ak xalaatam fàllu man su ma ñëwee jàmm gën gii moom mi moom a fi jëkk indi ba fi laa xam ñu baree baree baree baree bari trouvoir nag dañ leen di ñaanal yàlla nu am ay production yi production yi production yi production bien vrai que ku nekk xam na ne fii senegal boo amul wéeruwaay day xaw a metti waaye nag li nu war mooy jéem a jàpp ci trouboir te xam ne trouboir sac la ci ñun parce que aussi amuñu fii ci commune bi lu ëpp troupe bii nii ma traversé tuuti rek ñëw ci kilifa yi maire bi fii miinuma maire bi gaa xawma buntu këram nu mu féete mais manifestation vous ne assisté naa ko fii waaye saa yu que ko gis mu les dérangement ak déplacement lu jafé ci autorité waaw ñëw na fi ak Baba Diallo ñëw na fi ak Jack Star ñëw na fi ak jenen ak mais bu ñëwé dina gis maire def ci lim ci war def manam ci gattal maire mi ngi taxaw mi ngi may wax encore une fois képp koo xamante ne artiste nga nekk fii ci commune bi baa nga jegeit commune bi jegeel ñii nga xamante ne ñoom nooy autorité yi parce que gis naa ne daal ñu ngi jàpp ah man dëkkuma fi ah man yëmbal laa dëkk pour que ça soit claire yëmbal noor mais actuellement je ngi tëngéej sama kër suis ba ñibina fofu. mais luma am la mais la daan juggé ñëw fi di di assister lu bari ci ay mais ça buma ñëwé gis fi maire bi trouvoir ci kaw ci kanam ci mais non non non aussi te remercier chaque jour mi ngi ak artiste yi mi ngi ngir agge ke ñi nga xamantene ñom noy autorité ci commune bi kon biran, encore une fois dañ lay remercier parce que chaque jour yaa sur le terrain xam lan la artiste yi mbebet nga taxaw ci seen mbebet bobu voilà fallu dina ñew nak ci casting bi ñi nga xamante mo fi téwal la premier magistrat de la commune de Sicap Mbao toogal nga toogal monsieur le maire toogal fi monsieur le maire ak ñi nga xamante ni it moom mooy ay conseil am yëpp ñu ngi leen di nuyu. di nuyu ñi fekk ci kaw table ji yëpp di ay nit ñu riche ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ki nga xamante ni moom lañu àndal ki nga xamante ni mooy El Hadji Basirou Ka.

lépp loo xamante ne lu jëm ci wàllu agence bi moom moo ko géré waaye nag di directeur programme bi bi nga xamante ni moom mooy Dental TV du nuyu it soxna Joor bi nga xamante ne it moom àndal di suñu jigéen moom it nga xamante ne it animatrice la ci li nga xamante ni it moom mooy Dental TV waaye Cheikh Mouhamadou Bachir dafa jël boppam féetale ki nga xamante ni. moom mooy Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Mustapha yàggal jàmm féete la boppam it ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall loolu di 25 mars gardien de la constitution di yëkkati ay moyens di ci def ñu ne ko Bass soo mu ne ma yoruma benn poste du ma maire du ma lenn mais président Macky Sall moo ma ñor damay jël samay moyens di ci def. moo ñoo fi toogal maire ñoom ñëpp jox naa leen seen wàccuwaay di ñaan yàlla seen lu rafet bi ngeen tàmbali yàlla na ko yàlla moo teg yéen ndax yéen de jubóo ngeen seen i maire seen maire jubóo ngeen ak moom waaw li koy firndeel mooy seen événement bi ba ngeen ko amee wax dëgg yàlla ci mairie bi damay am mbégte ndax tey jàmm ngeen ci Tamba lii mooy seen premier euh, Macky Sall buntu boo xam ne moo ngeen mën a jàpp mën a kon soo leen juboo ak maire rek loo leen bëgg ngeen ko am euh, man wax dëgg yàlla damay feeñal rek sama bés bés bu ne bég naa ci waaye bu tey bee ma dàqal ndax fii du sama commune waaye cofeel ak nammeel ak lu yàlla dogal moo ma fi andi te andi bu mu fi andi tamit rëccu ma ko ndax dafa fekk lu baax si gerem na gerem marem nak kami bebu ane beli bay bang, bu am lu ma def mooy yàgg ndax su dul woon moom loolu yëpp mën naa bañ am ndax xamante boo gis dogal yàlla ba yàlla dogal lu am pare ne ba bi ma ànd ak samay mbokk yi solo ne na nga def ay action pour ñu mën a jàppale ñi nga xam te ni mën a buñ daal pour suñu réew mën a naan dañu jàppale artistes yi jàppale même ña nga xamante ne am nañu yeneen liggéey yoo xam ñu ngi koy def amuñu ku leen doole ñu mën leen jàppale waaw ndax président Macky Sall loolu la soxla te waxuñu kenn mu toog kenn ku ne na nga def ay action su ko defee réussir am waaye euh, mbir bu ma mës a am bu dee bee ma dàqal sama xol dafa sedd ba mënuma wax gërëm naa ñi ma àndal yëpp sa yar lim na leen waaye yéen it jàpp te bi ñu tàggoo ba faw waaw maa ngi koy seedeel seen isaani dinañ ànd ak yéen gën a sama bëgg képp ku sopp Cheikh Béthio Thioune nga tàcc ko vous merci beaucoup. dafa bari xaalis multimilliardaire. non xam nga nee naa def ñoo ko daje pour ñu neexal ko ñu neexal. multimilliardaire la waa ji. ñu xëy benn jour. waa ji feebar. yóbbu ko hôpital mu def malaise yóbbu ko hôpital. médecin yi xool ko xool yaram yëpp def scanner xool ko génnee résultat yeeg génnee li nga xamante ne nii moom la def analyse yëpp. moment yi nga xamante ne nii waa ji milliardaire bi ngi toog di xaar résultat yi médecin yi ñëw na ko bon xool na analyse yeeg euh, euh, jàpp na yow feebaroo daal da nga war a da nga war a lekk lu néew médecin bi ci boppam moo ko wax de na ko yow feebaroo da nga war a lekk lu néeg lekk milliardaire bi ñu taxaw na ko nii ba euh, ñu baax na